wàccal ngeen fa toxoto yi wàccal ngeen fa toxoto yi parce que commissaire bi am commissaire bi nag du pouvoir jël leen moment jël na photo yi jël leen photo yi ngeen filmé parce que ça va arrêter Sénégal moomu leen moomu leen ba ma caa du côté ba tax may dox Hey, hey, hey! Non, non, non, non, non, non! Hey, hey! sànni grenade. sànni leen grenade pour lan pour lan ñuy sànni grenade non non eh. bàyyi ko bàyyi ko eh bàyyi ko eh eh dañuy dox am nañu droit. sànni grenade sànni grenade. sànni grenade. wàcc leen Malick wàcc wàcc leen. comme vous le constatez ah service de l'ordre yi le maire day génn di dem ñu ne ko du jàll voilà voilà mais on a le droit de marcher non mais eh eh dóor dóor commissaire il faut assumer assumer da nga may téye da nga may téye da nga may téye filmé leen filmé leen nag maa ngi nii da nga may téye non non non dugul waay dugul dugul eh eh teel kii waay teel kii eh eh waay sama mère laa téye rek waaw ma waay waay ci leen day oto yi waayeen monsieur le commissaire non non day yoon nag grâce sama liggéey laay def voilà